di ñaan réew mi di Sénégal borom bi subhanahu wa taala wàccee fi ay xewal yu sax dàkk di ñëwaat seen émission bi nga xam ne doon ngeen sifur bande annonce bi muy waxtaan ci Sénégal yi mu jot a traversé ba yegg si fii loolu daa tax ndaw ñi mel ne man mën a xam seen démb ak ni réew mi demee woon ak maam yi nu am niñ amee woon jom niñ amee woon ngor waaye ni ñu téye woon seen diine yooyu moom la ñu fas di leeral histoire nag nekk lu doy waar loo xam ne dañuy wax ne sax histoire dafay créer histoire laysa taarixu maa kaana wala laysa taarixu kama kaana ndax histoire pays bu nekk ak na muy nettalee waaye lépp loo xam ne ñu ngi koy wax fii rek dañu jël version yi ñu ci am indi ko ngir kii déglu moo am xam exact lii lan ban moo ci war li war a am ndax it li ñuy nettali lu gudd la lu yàgg ngir nga toog ko ko fekkee dafay jafe waaye nag ñu ko fekke woon ak ñanu nettali ak ay archives yëpp moo ngi fi. réew mi di Sénégal nag xam nga amoon na lañ tudde ay lamaan amoon na lañ tudde buur niki na amoon na dameel amoon na teeñ maasabala ca ngaabu ay bar bar siin yooyu yépp yu amoon la fii Sénégal waaye it ni ñu daan faloo it ñoom mag ni li ñu tuddee constitution muy suñu sart réew nekkul ne tubaab bi moo ñëw rek jàngal nu nu yore am réew mag ñi amoon nañ nu ñuy tànne nit ak nu ñu koy tege ci bopp réew mi nekul ne nit ki day am dooleem rek ñëw yor ngànnaayam yor yor fetalam ak yi nit ñi daal koy topp déedéet te jamono ju njëkk ji tax ngànnaay bi amoon daanaka man nga ne yat la xëy na bis bu ñu ñëwee ci Amari Ngoone Sobel bi muy xare dànki des na leeral lu mel noonu waaye réew mi ñi yàlla def nga xam ne ñoo fiy jiitu buñ ñëw di borom xam-xam dañuy taal ak daay ñaan kooku moo lakk daay gi léegi soo taalee daay gi daay gi commencé di tàkk moo xam benn fan moo xam ñaari fan moo xam daw na 1 moo xam na daw na 10 kilomètres en cas daal fi nga taxaw taal daay gi muy daw ba fi daay gi yem diggante boobu bëpp yow yaa koy moom ñu ne kii moo lakk daay gi kii moo borom daay gi suuf soos yow yaa koy moom fekk nag nekk nga borom xam-xam tàggu nga rab yi ak jinne yi ñu jox la ndigal nga dëkk ngeen mën a taal daay léegi nag su amaatee keneen ku ñëw di sa nawle di borom xam-xam ngeen doyoo ci juddu nga bëgg mu dëkk ak yow mooy mu sàkku dëkk ak yow da ngay xool ci diggante boobu fa la neex nga ne ko demal nga sanc fa kooko dem gajji kooku mooy borom gajj kon nga gis ñaari condition yooyu ñoom ñaari bu ñu nekkee ki nga xam ne moom mujj ñëw nga xam ne moom moo gajji dëkk moom daan def bu nawet bi bëgg a jub si moo xam bëy la wala xar wala ganaar wala soow daanaka jox kim fekk di borom daay gi ñu génnee koy sarax ngir nawet bi mana mana mana a mën kon yooyu yëpp mag ñi dañu ko daan seet daw ñu jékki-jékki rek jël nit teg ko ci bopp réew mi nga jiite ndax ku ne xam na ne ah, ki jiite am réew dafay bari loo xam ne day suyee ci li mu jiite daara nu xool ba xam yow yor nga bidiwu nguur rawaanu nguur ndax nawet bi dana barkeel ndax jur gi dana baax yu baree bari ndax bekkoor na nguur gi wex na wala wexut yooyu yépp mag ñi am na nu ñu ko daan seete ay boromi baatin ay boromi xam-xam yoo xam ne ñu seet lu mel noonu tey bu ñu ñëwoon fu mel na bawal bawal sax am na ñu turu bawal bi lu ko indi mooy daa bari woon ndox ba boo soxlaa ndox dañ naan demal ñu bawal la am na ñu indi version boobu ñoom am na lu ñu daan wax bëndum ndereb bëndum ndereb foofu lañ daan ñëw dugal baat daal di jukki suñu jukkee mu génne deret ñoo ne nguur gi dana metti dina tàng xare yi dina bari lool suñu jukkee mu génnee ndox ñu wax ne nguur gi nguurug jàmb la waaye nguur gi nguur gu lewet la noonu lañ kaan toppee niki bu génnee ñax bu génnee buy xool jur gi dana barkeel nawet bi dana barkeel yooyu yëpp dañu ko daan xam ba pare nag bu ñu daan fali dawuñu jekki-jekki na la yaay buur nga dem toog am na ay xeeti baax baax yoo xam ne def na la ko daan daan daanan la ko defal yoy yep sax dañ koy junj ni waye bu démé ba dugg ci histoire yi damé li dess na ci ñew niki nonu kajoor amoon tudé kaddu palokay wala wala bawal moko amone amone guuy gi ñox mam gesu niki nonu dess na jël euh, damel bi ki wara falo falu it ak see gunti daana wat watis gu bes daadi di daadi armal da top mel na ab jël ñu jangal kay ay alcorane yu bare bare muy ay yeen tënkee fa xajuma xat ay yu baree bari la nga xam ne ay yëpp mi ngi jeexe ala kulli na laa ala kulli seen xadir mu ëpp lu mu jeexe ci ay yooyu moom lay jeexe bu paree moom ci boppam daa toog ci jal bi yor ci loxo bi lu mel ne leget ak dugub yooyu yëpp nga xam ne ak ñi nga xam ko koy xëpp ngir mu barkeel am na teen mu ñuy wax ak naan am na càngaay yox càngaay yu xulli xulli yooyu yëpp ak néeg ba ko daal def waaye niki noonu mag ñi ñi fi nekkoon jiitu fi ndax yii yëpp yu ñu julli la waaye bu ci nekk des na ci ñëw ca kanam leeral ko waaye comme dañuy ubbi tey numéro un moo tax ñuy waxee nii ngir kiy déglu xam ne am na leneen lu ne ca kanam lu lu muy xaar niki noonu nii nga gis état Sénégal di ko taxawee wala état yëpp di ko taxawee di am ay poste sàngam poste sàngam poste sàngam niki noonu suñu mag ñi noonu la ñu amee woon ay ndombay tànk yoo xam ne moom lay am bu dee ñi fi jiitu woon ñoom la ñu tuddee lamaan ñu nekk ci bopp réew mi di atte amoon na li ñu tuddee impôt tey bu njëkk moom la ñu tuddee galak ñu ko daan joxe yooyu yit yu fi amoon la lu mel ne tey fekkante ne kajoor la damel bi bu ñu ko falee am na lingeer am na la ñuy tuddee jëwriñ bul mën nañu ko tuddee premier ministre amoon na jëwriñ bul amoon na tuddee fara kaba am fara biir nekk am fara làmbaay am lu mel ne béjjën am ceemal gànjool am barget am jogamaay am bancool am baja gàcceen ndiki noonu bawal saax saax ndol ndol buróob gàtt yooyu yëpp lamaan jamatil lamaan xàbbooy lamaan mbaaka yooyu yëpp jaraaf njàmbur jaraaf juréy jaraaf ndoj jaraaf sadle nga xam ne yooyu yëpp ay ndombay tànk la yoo xam ne bu ñu ko doon lim yu baree baree bare bare la yoo xam ne ñoo nguur gi fi ñoo fi nekk kenn ku nekk ak la nga xam te ne moom ak cër bi nga xam te ne moom la la buur bi cëralee nga xam ne ñooñu nga xam ne ñoo àndoon ak buur bi te buur bi cëral leen ko ñoom seen jëmmi bopp tey su fekkoonte ne xare war na am bu buur bi tëggee xas woote xas xas mbër mu dañuy def lu mel ne géew bi mbër yi bëree géewu làmb jël am làmb teg ci digg ba jël ab xeej samp ca ki war a dem ca xare ba suñu ko bàkkee bu déggee aw bàkkam da koy xam su demee day jàpp ca xeej ba ñu bàkk ko mu xamal ne xare sàngam bu ñu demee ma àpp diw sàngam danaa ko rey wala dinaa def nangam dinaa def nangam nga xam ne li nga war a def moom ngay wax ci te ni nga ko wax noonu lay demee. niki noonu dana toog ay laaj xabtal Ah, sàmbali ngeer yi eh, lekk ci yooyu yëpp mag ñi nañu ko amoon daanu ko def daanu ko daanu ko taxawee kon Sénégal dëkk la bu yàgg yàgg yàgg dëkk boo xam ne histoire am bu riche la kon nekkul ne rek noteel dafay mas am nekki noonu colonialiste yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw junjoon nañ leen ko ci bande annonce bi ñu fi jiitu di ay colonialiste mooy dañoo wax ne waa Portugal ñëw jiitu Sénégal ci atum 1444 la ñu fi ñëw ginnaaw bi la fi Hollande nekk ginnaaw bi euh, anglais yi bi France nga xam ne ñoom ñeent ñi réew yëpp bi ñu fa ne bokkee ak ni ñu doon xëccoo Iligore waaye ñoomit it bi ñu fi ñëwee daanaka boo xoolee li ëpp ci réew mi tey da ngay dégg ñu leen tudde ay monument di leen tudde ay place di leen tudde ay école di leen tudde ay ay te booy xool li ëpp ci réew mi ñoom ñoo ko yàq te ñoom dañoo xool ne dañoo jox ci dañoo jox africain yi civilisation tey bu fekkoon ne dem nañ ba lu mel ne histoire yu jëri la Samba yaay débb sok ab sa noonu keroog ba ñu ko reyee dagg bopp ba ak loxo ba am na benn journal bu waxoon ne ñun ñi ñëwoon Afrique ngir di leen jàngal civilisation jëf nañ jëf ju ñaaw jëf ju bon ndax tubaab yi seen caay-caay ak seen mbon sun masaan rey jàmbaar dañuy dagg bopp ba samp ko ci bant di ko la ci réew ya ngir ña fa nekkoon gën faaragal kon yooyu yëpp da ngay gis ne ñoom jëf nañ fi ay jëf yoo xam ne gisuma dara dara dara dara luy war a tax ñoom fi tudd ay monument wala xale yi mujj jëf war nañ leen xamal daal ne leen ñii ngeen di dégg muy borom tur yi lu mel ne ay Faidherbe ku mel ne ay Pinet-Laprade capitaine Canard ku mel ne ay capitaine Ringo ku mel ne ay Zuri Gabiri ku mel ne Valière ku mel ne Voltaire ku mel ne Biquet capitaine Valva bari nañu bari nañu bari nañu nga xam ne ñooy yépp boo leen xoolee def nañ ci Sénégal ay jëf yu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw rey suñu maam yi lu baree baree baree baree baree bari dem ba jël kanu indi ko Sénégal ngir di ko tiire ci kaw suñu maam te kanu ku ne xam nañu bi ñu ko liggéey sax parlement bu France dañoo waxoon ne kenn amul droit tiire ko ci kaw doomi aadama waaye bu doon ci jamono ji dañuy wax ne dañoo violé liñ te euh, droit de droit de l'homme nga xam ne lu mel ne bataayu ngol-ngol kanu la ñu utilisé rey ci Kajoor 500 personnes muy juróomi téeméeri nit am ñu ne ñeenti téeméer muy jëf ju ñaaw ju bon kon bu ñu demee ba tey ay ñoom Valère ay Faidherbe ñoom fi tudde ay ay monument ay place kon dafay mel ne suñu jiitu réew yi war nañoo deltuwaat gannaaw bu baax a baax ndax xale yi mujj ñëw déggu ñaan lii mooy place nangam lii mooy mën nañoo jàpp ne kooku daa jëf ci Sénégal ji yu baax te pourtant de ñooñu ñu tudde ay monument jëf yu ñaaw a ñaaw def nañu ko boo xoolee Faidherbe mii bi muy attaqué Ndaté Yàlla Mbodj mii waajur Sidiya Ndaté Yàlla dal ci kawam lakk wàllu gépp ba ñoo ñooñu gàddaay yi dem ñomre mu sàkku ñu andi leen te seen ñomre bañ keroog bi muy takk xare ngir ñëw def la bataille de ñomre lakk na lu mat ñaar fukki dëkk ak juróom ñoo xam ne seen yoon nekku ci boom leen ñëw waa ñomre doonte ay bañkat lan ñu xare ak ñoom xare yu tar yu méttee méttee mét waaye teewul jël nañ si yéen ndate yàlla yóbbu jël yaayam yóbbu yooyu yëpp ci kaw doole ak tooñ ba pare ñu ne waa ñoom rek lànk gii ñu lànk yëpp tafsir maxtaar ndumbe moom moo ko waral jël ko yóbbu ko yii yëpp nag bu ci nekk des na ko defal ay jotaayu boppam leer ko ba ñu xam ne réew mi am na nu mu nekke woon nu baree bari ndax ni ñu gouverné woon baax na ni ki noonu réew mi di dox ndax Sénégal booy xool lu mel ne tey Jolof mas nañ jox exemple tey dëkk la waaye démb réew la woon yu lëkkaale woon dëkk yu baree baree bari empire Jolof demoon na sa wax nañu demoon na ba bi demoon ba Murtani te yooyu boo xoolee ki nga xam ne wax nañ ne moo ci la empire Jolof sox ko mën nañ ko dul muy Njaajaan Njaay ci histoire yooyu gis ñu benn yoon boo xam ne jël na yat wala fetal wala jaasi mu dal ci kaw kenn mu dal ci kaw kenn kon mag ñi ñoom amoon nañ ngor amoon nañ diine amoon nañ ñu doon bañ bu bañ jotee ñu bañ bu nangu jotee ñu nangu waaye topp ñu woon ci ginnaaw tubaab bi rek su tiski su tis leen ne alhamdulilah ñu ne ko yarhamukallah demewul woon noonu te boo xoolee ñoom ñun jar di waxtaane la ñu jar di tudd ay monument la ñu jar di def waxtaan ci xale yi ngir ñu am jom am lu ñuy am am lu ñuy bañ ndax booy xool koo xam ne ay mëq doom nga yor mëq doom bala nga koo sarse rek mën naa def 10 minutes 10 minutes jaasi nga yor ay saabur ngay xeex ak ñoo xam ne ñu ngi yor kanu yor ay saspot bu ñu tiiree lu mu gàtt gàtt juróom fukki nit mën naa faatu wala téeméer nit mën naa faatu sas pot yi buntire yow ngay xex ak ñom di am ci kaw ñom ay ndam kon ñoñu jar nañu jar nañu jangal ndax toa bi kat bu len fatne dir biñ fi ñewé ba biñ naan yeneñu mom. mom mom ngeen seen bop man ngeen dem ak seen bop amul benn yoon boo xam ne tubaab bi not na sénégal gépp ba dara ba dara dara yëngul amul ndax at yu mujj yi nga xamante ne mooy at yu mujj yi fi tubaab bi def ci yi tanorob goñ nga xam ne moom mujj nekk teeñ ca bawal bi ñu xareejee ak nañu ko ñàkke ak ba ñu ñibbisi ba ñu tëru leen ca ngaabu ba jam seen seen seen sordaal yooyu ñu jam ci lu baree baree baree bari nga xam ne ku ñu wax dippoy di benn docteur vétérinaire dóor nañ ko benn bal boo xam ne dafa dugg ci pooj bi ba sar bi ñu ñàkkee bataay yooyu am na ci ñoom ku bind daan ne ñun ñu jàppoon ne Sénégal nooy na ba fu ñu neex taxaw nanu wóor na Sénégal nooyut ndax kat jëf jii nga xam ne jëf nañ ko muy xeex bu metti bii dal suñu kaw te kii ko def di Tanor Goñ ànd ko euh, Mouhamadou Lamine Dramé ak Sayer Mati Ba mii doomi Maba jox ba kon nañu xam ne senegal doyut kon Sénégal musta musta nooy musta topp ci ginnaaw tubaab bi rek di ko di ko di ko mbaxar yëpp ay bañkat ay résiste moo fi nekkoon nga xam ne boo ko xoolee ñi fi ba a nekk ñëpp seen diggante ak tubaab bi daf daan tar daf daan metti dañ daan wane jom di wane ngor te du ñu daw du ñu wanee lu ñaaw mukk ndax tubaab bi sax bind nañ ci archives nationales wax na ñun de ceddo yi daanu leen jekku ba war leen a rey dañ naan ñu dañ naan ñoxeeti ngeer gi génn jàkkaarloo ñun daan ñun de man nga ñoo fetal ñu daanu waaye kenn duñu humilier maanaam kenn duñu toroxal tey duñu wane ginnaaw nga xam ne ñoom dañoo jomba woon daw dañoo jomba woon daw di wane ginnaaw nga xam ne dañuy dem ba tubaab bi maanaam jekku leen ñu génnee ci ngeer gi jàkkaarloo tubaab bi mu dóor leen bal ñu daanu waaye duñ daw di wane ginnaaw di joxe seen kon yooyu ngor ak jom moom lañ leen wane ci fànn yëpp ak dee ni mu métti waaye bu dee jotee dañuy dee bu taxaw jotee ñu taxaw di résister di bañ ba pare yàlla defal leen nag ñu nekkoon ñu am fit am gàllaaj ñu dellu ginnaaw doon ay ñay yu xare ba pare seen kàddu nekkoon ikma amoon ikma nga xam ne fas wuñ daan war sax buñ lañ koy tuddee suñu ko wundalee loolu day jur lu bare bare kon xam-xam ak cosaan ak jom nekkul loo xam ne gan la ci Sénégal moo tax diine lislaam bi mu duggee Sénégal am ñu ko téye ba lislaam booy xool fii ci àdduna bi yëpp Sénégal am nañ ci taxawaay ju réere ci fànn yëpp nag loo jàpp muy alxuraan muy diine muy muy xam-xam muy lu mën a doon boo ñëwee Sénégal am na ñu ko taxee mat sëkk lu ko waral dañuy wax ne ku la mënoon ca jaay jamonoy jaayil moo lay man ci lislaam bi waaye ku la mënoon ci ceddo gi bu tuubee moom moo lay man kon nga xamne negi ngor yoy ak negi jom yoy askan yi bax yoy kon senegal war del dellusiwaat andi lat ndaw ñi li ci amone démb ak niñ daan taxawale ak niñ daan bañ su bañ jotee ak ngor gi ñu daan am ak niñ daan bañ waré askan xolal tay ku melne ne la dior donte def na ci ñew def ci episode yu bare bare bare kere bi mo waré dem jéxalé dafa xey wax ay waa ne leen na ngeen firiku bu leen dem ca ba daa ne fii ci kayo fii ci bawal am naa fi bànneex bu nekk fii ci kajoor fii ci bawal fii la amee naqar yëpp daan ne kajoor laa juddoo kajoor laa yaroo kajoor laa fekk ba kajoor laay deewee daan ne tey balaa jënd so sama deret dana suuf si dana tuur ci suuf si kajoor sama deret màndal sama suuf su maam tey balaa tisbaar dinaa julli ak maam ba jox ba sama sëriñ ba daan ne garab ci taatam lay daanoo war ci maalaw maalaw ngexal wàq ak tànk mu ne xam ngeen lu maalaw def ñu ne mu ne maalaw wàqi na dande kajor la juddoo kajor la yoro kajor la fek ba kajor la deewee mbokki yi ku xam li ba pare tak xare wara dem wax say soxna ñu friku mu wóor na la boo fa ngay des ba pare wax ñu hamne na len kep ko xamne ne dund la gënal tay nanga nanga dem sol naa bu mbubum dee malaw mu ne malaw lu mu yo ko gudd na ko mënee gor nga xamne yoy ay jéego la yo xamne ñom garmi dañ ko xolal mu sa ba mo dem gille muy la bataille de Guilé diggante Damel Samba Law bi ak ki nga xam ne moom mooy Albury eh, mi nga xam si ne moom moom la ñu xeexal muy xare mbëllëxe muy la bataille de Guilé Moussa Buri diggante ko mi tax Kajoor ak Bawol Fandé keroog lu mu wax keroog bi ñu ko bàkkee ci xas ma ñu bàkk ko Moussa Buri diggante koo du ñëw woo ñeenti soxnaam yi muy joor dikke joor reelaa joor may ak joor mu neex maa wu ñu àndoon a jàng jàlloo mu ne Samba Law bi dafa maa lan laa ko war a fayee ñu ne ko boo demee Guilé ñëw di ñu ko nett li ñu xam ne ma tooñu borom kër mu daal li tax ma tànnoon leen rëccu moko dan daane sama lay mu nako ko mu nako sa buñ gilé mak sama fas bi wax yaram ñu suñ bakkan la lay fay duñ si nga xol suñ bakkan la lay fay te nam ko xee gille na lol garmi yu bari gilé la daano musa bari di gën ko du gilé la dess te mo né waxon nako jom ak ngor ba tay buñ déggé kaddu gu tax nu wara bañ ni bañ xolal birima Fatma ci coupé ga bi demal Amérique ngoone ndeela génne tàllal loxoom lépp na xeraw mu ne ca yaasin loxo birima boobu nga jàpp mi ngi mel ni sama loxo nga jàpp man dameel ndax maa nàmp ci meenum géej mu nàmp ci meenum géej daan ne euh, daan ne birima faat ma cubb loxob ca yaasin nga jàpp mi ngi mel ni sama loxo nga jàpp waaye yéen seen luubate kër ca ndeela gi seen luubate gi fu ngeen dem yóbbu ko fa birima li muy doon doon xale dana ko kàddu gi nga ma wax tey laa ko njëkk dégg tey laa koy mujj dégg dootuma ko dégg ba faw te boobu xale bu ndaw la te kii mooy dameel teeñ bari mbooloo mu ne kon nooy def mu ne ko daa dem ba ci suuf soo xam ne bu fa dameel jaaree gattax gu mu fa jóge du xam koo doon bay mu ne kon soo demee ci dëkk booba ak buur bala fat dinaa leen fekk boole leen jiin mooy daan leen fekk fetal leen mu daal di gàddaay topp guddi gi bi fajar di jot gay naa ko nuyoo ca pay ba pourtant loolu ñu waxante ak loolu ñu waxante moo waral xarem Njoop muy xare bu méttee méttee méttee méttee ndax jamono jooju jigéen ñi Kajoor koo waxal mun la góor ñaa nga siin boo waxee jigéen xaw koo gëdd sax mu ne waaw wax nga dëgg de man maay jigéen awma doole waaye góor ñaa ngi siin tax dameel tëgg lu xas war a dem waaye loolu des na ci ma sa ñëw moom it leeral ko lu bari ba kon yi ñuy junj yëpp mooy réew mi dafa bari lu mu traversé war a bari lu muy war a ñu koy lu ñu war di jàngale ngir nit ñi xam fi mu nekkoon de kon mag ñi noonu ñu amee woon rabe woon ak noonu ñu daan dëkkee nga xam ne yooyu ñu daan génnee di ko jot léegi nag ci noonu lay dem ba réew mi di gën a modernisé wu ndax Euh, ginnaaw empire euh, Sénégal xam nga nekkoon na ci kilifteef Mali am na ñu wax loolu foofu am na ay version yu fi ñëw am na ñu wax ne Njaajaan euh, Njaay moo leen libéré ginnaaw bi buur bi ñu wax Mansa Souleymane faatoo waaye dox nañ ba gis leneen ñu wax am ñu wax ne ku ñu wax Sunjata Kayta Sunjata Kayta bi nga xamee ne dàq na Soumaoro Kanta am na ñu def ko rey te moo teg empire empire empire Mali ci ngir dëgëral nguuram nag mu yónni doomu baayam Kajoor mu jëlal ko Eh, fas lu mat loolu ci juróomi téeméeri fas bu jëndee ko fi nga xam ne moom mooy kajoor war ko ko andil jaar jolof ba fa jaaree daje faak ku ñu wax euh, jolof yi mancha loolu am ñeneen ñu ko andi nga xam ne kon Sénégal li mu traversé euh, bari na waaye ba ci njaajaan njaay moom ñu jundi lu baree baree baree baree bari moo ko def fii ci Sénégal ba ci gàmmu mii sax li muy am am doole wax nañ ne moo ko fi njëkk def am nañ wax loolu wala bokkoon bu ko fi njëkkoon def it moo ko njëkk woote ba def ko muy fête national nekkoon boroom xam-xam boo xam ne def nañ Sénégal Sénégal lu baree bare baree bare ndax ñooñu kuy waxtaan Sénégal foogu nga leen tudd ndax dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñu njëkk a marqué seen histoire Sénégal la ku mel ne euh, Sunjata Kayta euh, ku mel ne Maysa Wali Joon ku mel ne Njaajaan Njaay donte maanaam ñu leen jiitu waaye ñooñu néew na looy tudd histoire Sénégal ci kaw ca doo leen tudd ndax ba ci bawal gii sax am na ci euh, borom xam-xam bari ba muy Babacar Mathiour Ndiaye nga xam ne ko bari xam-xam la dégg naa ci kaddoom te ku ma naw la doon te mosuma koo gis mu wax ne ki njëkk a nekk teeñ te ñi nga xaayama nga jaat donte ñit am nañu ne Amari Ngoone Sabel moo njëkk a nekk teeñ ginnaaw bataay yu dànki la dàmbe bawal ak kayoor am nañu ne ñu njëkk ki njëkk a nekk teeñ mooy teeñ ca Njeela Njaay jaaxuñ ba am ñu ne teeñ ñoxar Njaay ku li jiglaan waa li moo njëkk a nekk tey waaye boo gisee ñu indi version yooyu yëpp rek ngir kii lu xam li war a nekke nga xam ne kon ndombay tànk yooyu ñu doon am daan ko séddale kenn ku nekk la war nga di ko def nga xam ne buur bi xelam mën a dal su xeex jotee ñu xeex bu bañ jotee ñu bañ tubaab bii nag nga xam ne ba léegi nii daanaka mën nañ ne ñun indépendance amagul ko saa su nekk luy néewal doole Afrique luy tàqale ndax yàgg naa tàqale mbokk fii Sénégal ngir dem ca yàgg naa bëgg ay mbokk taaxali ko ngir mu ne ci kaw pouvoir bi chaque jour politique bu bon rek la tubaab bi mas di def fii tey histoire Serigne Kokki mi nga xam ñu ñëwoon ko boo xoolee bi amee jafe ba gàddaay dem Dakar grand Serigne Makhtar Diop fat ko ki fi nekkoon ñaan ko boro dafa yónnee ci commandant bi nga xam ne moom moo nekkoon gore xamal ko ne daal maa ngi sàkku Serigne Kokki moomu ngeen teg ko loxo téye ko déglu ndigal waaye keroog bi nga xam si ne commandant Gorée bi woolu na grand Serigne Makhtar Diop. ngir mu jébbal ko ki nga xam ne moom mooy Serigne Kokki dana leen man du ma jàpp sama mbokkum julit sama mbokkum sénégalais sama mbokkum deret ñu bokk di asar an laa ma di ko jébbal ay noonam duma ko def mukk waaye tubaab bi ci saay-saayam xeexul ak grand Serigne Maxtaar waaye dañoo fexe ba gis comité de lébu bi ñu fexe ba taqale leen fexe ba convaincre leen am lu ñu leen gëmloo ñu fexe ba grand Serigne Maxtaar Diop jiiteetu leen ñu fexe ba fal ku ñu wax Elimane Diop Elimane Diop moomee lañ doon bëgg bi ñu ko falee ab daanaka dañ ko fal rek jamono jooja dammel bi fi nekkoon euh, di Amari dee la yaakaar naa su ma jumoon daa di saay ñu fal dammel mais si teen mu daal di ñibbisi nga xam ne kon réew mi yàgg naa am ay baj-baj yàgg naa traversé lu baree baree bari ay métit deret yu baree baree bare bari tuuru xam nga xare boo xam ne juróomi téeméeri nit faatu nañ ci métti na lool nga xam ne kon suuf suuf si màndi kenn kenn waralu ko kudul tubaab bi ndax ñoom réew yii bi ñu fi bokkee nekk ñoom seen bopp ñoo njëkk di xëccoo bi ñu fi ñëwee ba noppi ñoom ñëpp ñoo bokk di xëccoo Île gore nga xam ne portigal moo fi jiitu Hollande nangu ko ci portigal anglais yi nga xam ne bi ñu ñëwee tefesu Gambie lañ daloon anglais yi nanguwaat ko ci ci Hollande France nangu France ñoo ci mujj jot français ñoom bi ñu ñëwee Saint-Louis lañ dal bi ñu fa dalee ab diir ñetti xeex lañ xeex ak waa waalo teg fa loxo nga xam kon yooyu yëpp fi ñu ko teg te pourtant ñoom bi ñu doog a ñëw fii daanaka amuñu fa dara ay ay ay néeg yu ndaw lañ ci amoon nga xam daanañ jox ay garak ay impôt waaye seen mm, jukko ju bon ak seen politique ak complexe bi ñu doon dugal ci ñenn ñi ak ñenn sénégalais yi nga xam si ne fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo fii la ñu fekk baax am na si ñoo xam ne ñoo mas di ànd ak tubaab bi dañoo mas di ànd ak tubaab bi di xeex ak seen bokk sénégalais ndax mboolem bataay yi ñu lay wax nii muy xare yi li muy métti métti xare bu ci nekk su tubaab bi su su su dajalee ay soldaalam ba ñu dajaloo boo compté ci biir soldat yi da nga gis ay sénégalais yoo xam ne bàyyi sénégalais yaayam sénégalais ak ay volontaires tey boo xoolee exil de Albury 2300 soldats la colonel Dotsu dajale mu am le 16 mai 1890 waaye amoon na ay volontaires ay jolof-jolof ndax keroog bi bi ñëwee fekk Albury génn mel na kuy dem Kayaadi bu dugg ci xur bi jaar noonu lingeer toit bi mu ko bëggee topp ay jolof-jolof ci boppam ñoo ne ko soo duggee ci biir xur wi. sa tor dal daan jeex tak ci bir xur kon ñu xam nañ alburi kon ñu xam nañ alburi waye bo xolé poisse koto biñu ko xexé nga xam pini la laprade ak capitaine Caral ñoo organisé won xaré boobu 6000 soldats ak 4000 volontaires ay sénégalais yu bare bare bare bokku nañ ci sénégalais yu bare bare bare bokku nañ ci ñu xaré xaré bu metti metti ñu ñak di jam kanaar jam Pinet-Laprade deret ji bari turooti waaye lay xamal sénégalais yi ñi fi nekkoon te jiit fi daañ bañ te yàgg a bañ ñu amoon jom lañ xoolal ku mel ne Sémou Djimik Diouf Sémou Djimik junjoon na leen ko keroog ni mu ñëwee woon ci xareb Pathé Badiane Sémou Djimik Diouf commandant bi ñu wax Delors Delors bi mu ko woowaloo ca Ndar di ko laaj impôt Saloum Sémou Djimik dafa indi li nga moom mooy impôt yëpp dajale ko ba mu ñëw mu nekk ko lii mooy impôt bu Saloum waaye man Sémou Djimik du jox lépp dama lay jox genn wàll gi genn wàll gi ma téye ko ndax saalum ñoo tax ma dégg buur ñoom ñoo ma fal saalum am na lu ma fa war a def kon benn mocc bi ma koy nga xam ne ba jamono jii may wax yow bépp mm, chef de boo xam ne yaa ngi am li ñuy tudde remise wala resto nu ko mën tudde nga ko sant si mu jibib Juuf te dafa jàkkaartuwaa bi bañ moo tax pëli daan ko wax euh, njaarka njaarka am na ko firee lëm mooy lëm mu am ndox ñu ne lëm kenn mënu koo dëpp ndax boo ko dëppee séeréer daan ko wax simu borom reef kaan reefkaan nag bokkul ak reefaan nga xam ne kon ñoom saa bu bañ jotee ñu bañ su nangu jotee ñu nangu dameel Samba Laobé mi bi mu xasee ba ne damay song ji Alburi Jolof ba ñëpp dégg ko Lat Joor mii nijaayam bëggul benn yoon mu dem mu kalaame ko gouverneur dana ko wax naa ko ba Kajoor ak Bawol dégg wax naa ko ba Kajoor ak Bawol dégg ko damay dem gouverneur na ko boo demee loo fa yàq danga ko fay mu ne ko man nekkuma koy yàq di fay man nekkuma kuy yàq di fay nga xool kon ñoom jom jooju ak ngor googu mos ñu koo mos ñu ca des ginnaaw xoolal jéeri joor ndeela mii nga xam ne donte ñi ci mujj la kere bi nga xamee ne tubaab bi euh, prempant mi ngi fi te jël conseil bàyyi fi commandant Sota ak la ci xewoon des na ci ñëw ci surtout jéeri ndax yii ñuy wax yépp rek day première numéro bi ngir ñu bëgg a euh, ubbil nit ñi ñu xam ay bunt yu bari yoo xam ne jaar na Sénégal waaye yi ñu jotee yu ci nekk am na épisode épisode yu ñu ci war a def bi mu jaayee jàmm ak la ci xew ba prempa jël conseil bàyyi fi Sotan na ko na nga ko déglu ak yi ci xew yëpp mu ne ko danaa la yar dama laa bëgg yar ndax doomi yi nga te jàng nga commencé ko def di ko di ko def ci ak buum bëgg koo yeew xaritam bi jox Serigne Dieye moo dajj porte ba jël paak tëj bi mu yoroon dëbb ko commandant Sotan rendi ko nga xam ne bisub keroog lañ jël ab police wàccee ko suuf ndax police moom ci kaw étage la mas di nekk waaye keroog bi loolu amee lañ ko suuf waaye keroog jéeri dafa wax Serigne Dieye ndaw escalier yi ñuy wàcc maag yow nañu jël benn par benn parce que bu boolee par ñaar dañuy mel ne maag yow lañ daw kon nañ def benn par benn kër bi mu yore paak ba di wàcc ki nga xam moo nekkoon ca poste ba nga xam ne ñu àll maa noon moom lañ ko jox ñoo ko fergaroos muy benn toit bu ñax fergaroos bi ko jéeri jubee daf na bëri daw mu ne ko mu ne ko subhanallah astafra dana ko maaxàllaa góor gu jongul mutul góor gu jongul mutul góor man sama xaalis laay soxla looy daw nga xam ne keroog dafa wax dafa dafa wax Serigne Dieye ne ko waral ci fas bi man ma topp sa ginnaaw lu ñëw ma dégg ko ñuy dox ndànkan ba ndànk-ndànk nga xam noonu lañ demee Thiès tëgg way def seen yëfi garmi yooyu yëpp ñu def ko kon dangay gis ne ñoom dañoo mas a am jom waaye daw di wane ginnaaw daw waqet ci histoire Sénégal néew mu amul waaye bataay yii nga xam ne moom moo am ci diggante tubaab ñi fi nekkoon li ma ci euh, gisagoon ak di ko dégg ci historien yi dégguma ci foo xam ne daal dañuy wane ginnaaw daw ñu amoon jom lañ ñu amoon ndax euh, Faidherbe bu bind na wax ne ñaar fukkat ak juróom ñoo ngi xeex ak Lat Joor daan lu nekk war nañ ko ci doxalin ci ngànnaay daane ca ngol-ngol war nañu fa ba bëccëg ndax rey na ci ñun cent 104 personnes Mari Kasanava tamit bind na ñu dem ba wax ne sax kenn mënta woon a xeex ak moom ndax eh, eh, eh, stratégie bi mu daan teg dafa nur woon stratégie ku benn sàppone bu ñu wax wala cinéma bu ñu wax jeune si il y a 3000 ans wax nañ ne moom noonu la daan xeexe nga xamne ne fi mu daan xeexe ak toba bi li ëpp ci pindu teen ndax ñom dañu dañu dajale won yu bari ndax ñom cedd yi benn mokkal nañu xare am nañu fit am nañu galaj seen der dëgër na da naka xex bu ñak rek manam walum armu lay doon walum armu lu melni kanu wala toba bi ëpp leen matériel waye bu dé xeexu corps à corps nga xamne jaasi ak jaasi niki poas poise kota bi len ñom demb waa na leen bu ñu ba kan yu tàkkut bu dé xeexu loxo loxo ñu leen ëpp fit ñu leen ëpp doole ñu leen ëpp jom ñu leen dàq xeex boo xam ne dañ ne rankum dajee rek nga xam ne jaas yi jaas la boo ko mas a gis rek tubaab bi ca ndam boo ko mas a gis tubaab bi amu ca ndam ba ci bi ñu fi tegee maajo ji diggan kodd moom euh, te capitaine Ringo moomu ànd ak ñoom capitaine Zourigé Biri ñuy dajeek euh, Lat Joor dañ leen a gagné boolem xare boo xam ne jaas yi ci ëpp ak loxo loxo rek xamal ne tubaab bi daf koy perte ñàkk leen a mën dékku rek moo tax mu utilisé yu bare bari rey suñu maam yi lu bare bari waaye Sénégal dëkk la bu am jom dëkk la boo xam ne ci ngor ci diine ci juddu bu ci bañ yooyu yépp dañ cee misaal ba ci tubaab bi doonte moo fi nekkoon ba jàpp ne loolu dëkk bi nekkul ne dañ ko bàyyi lu ko neex bi def ba ci raay bi rek bi mu ko bëggee tëral daj na ci lu nekk ay négociations yooyu nekk ba ndax boobu di ko waral mooy dammel bi ñu xalaat joor moo fi nekkoon nga xam ne yónnee nañ fi Brière de Lille yónnee nañ fi Valière ku nekk ay ma sekk ndooye baawa def nañ ci ay ay waxtaan ku nekk ñëw di mocc ci Lat Joor ba Lat Joor sax leen ne liggéey bii ngeen di def duñ teg doomi kajoor yi lu dis doomi kajoor yi duñ leen ci teg lu dis xoolal kon lim doon bañal doomi kajoor yi bëggul leen ñu jàpp leen jàmm xamal leen campagne bii ngeen di defit at mu jot da nga may jox ñetti fas yooyu yëpp dañ ñu nangu ko nga xam ne kon nekku ñu woon dañuy jékki-jékki rek jëwu tabax seen kër jékki-jékki tërte moo tax tubaab bi ci ay jamonoom ci politique am ñoom dañoo ñëw ñuy xalaat ne kon baatu damel nañ fexe ba jële ko Sénégal baatu damel nañ fexe ba bu am Sénégal ndax damel mooy koo xam ne bu amee réew mi yëpp moom la ñuy déglu moo tax bari xool Lat Joor ay atam yu mujj nekkatul woon dameel parce que tubaab bi bëggul woon réew mi di Sénégal mu am kenn koo xam ne li ëpp ci réew mi moom la ñuy déglu pouvoir day am pouvoir bu rëy rëy moo tax Kajoor ñu daan ko tas di ko def ay province ndax am na jamono yoo xam ne dañu koo jël def ko mu nekk certain canton get nga xam ne foofu la féete waaye baatu baatu dameel bi moom bëggatuñ ko woon a dégg ndax daf leen a enregistré nga xam ne tubaab bi moom chaque jour rek ay ruuxale jaxase suñu maam yi jël kee fal ko lee bu mu foll la fal kee yow laa fi teg ànd ak kee nga xam ne dafay dem ba ñoom seen biir sax ñuy xeexoo waaye bu ñu leen bàyyi woon ñoom seen biir ñuy boole seeni doole di boole seen i am-am di boole seen alal tubaab bi dana fi gën a métti la waaye tubaab bi li ñu naan euh, tàqale aw nit pour jiite ci loolu la mas di dox tàqale aw nit pour pour jiite booy xool saa su nekk rek day fexe ba jël kee teg fee ndax boo xoolee ku mel ne mm, Samba Laobé Khourédia Mbodj ñoom la jor am nañ jafe dem rib tubaab bi fexe ba gis ko ñu négocié ñu fal ko li nga xam ne moom mooy Dameel te Lat Joor nijaayam la ndax Xuraja mi ko jur Ngoon Latiir mi way jur Lat Joor moom moo ko jur waaye yooyu yëpp luñ ci liñ ci jublu chaque jour jël kee teg fale yàq xel ba booy xool dañuy dem ba buur bu nekk booy xool buur bu nekk ba ngay daanu sa moromi buur dañ laa wan gannaaw ndax boo xoolee sambalaw bi moo njëkk a daa moo at yi mujj sambalaw bi mi daanu bi mi daanu ca gaar bi ci teewoon le 6 octobre 1886 mi ngi dund waye la Joor bi mi daanu alburi mi ngi fi di dund Alboury biñ koy exilit am na ñu fi desoon nekk noonu tubaab beeg ñoom Lat Joor ñoo ànd xeexe Amadou Seexu Maariwu Samba Sadio te amul Seexu di seen mbokk nga xamne yoy yep tuba bi day tour tur dakale ndax Amadou Seexu Maariwu la Joor la ba borom daarnde mi ne won ngan du tabax si diyee ndata yàlla dañoo boole won seri doole biñ ñu boole seen doole ñu am force bu xajul fenn yalla def jamono yoyu guerre Allemagne France am ba ci lañu rayé Nampalys 3 français yi xam ne ñoom mun ñoo dékku ñaari xaré yi mën ñu dékku xex ba ca France seen digënté ak Allemagne ba paré seen digënté ak la Dior mi nga xam ba mi nekk kessé kese mënuñ ko dara Syrie mi nga xam ne ñoom ñoo formé defal ko formation yobbu ko Algérie mu jang ñu yobbu ko Tunisie mu jang ñu defal ko formation militaire ba mu nekk so leet na xam ne ñu xeexe wan leen ginnaw andal la Dior ak Amadou Cheikh ñu xam ne kon ñet ñi ginnaw dañ na dajé kenn rek mu leen di gañee benn buur ñoom ñetti buur yooyu buñ boole seen doole kon tubaab bi fu mu jëm kon fan la jëm ñoom ñett ñooñu bi ñu boole seen doole te xeex baa ngi daw fee tubaab bi ci am xelam mu fexe ba jël Lat Joor falaat ko li nga xam moom mooy Dameel jël Sidiye ndate yàlla def ko mu nekk chef supérieur de Waalo Amadou Seexu Maadiwu ñu ber ko waaw loolu ndax da koo def ngir xam ne ñii ñoo mook ñoo moom seen ñoom ñoo seen maam moom moom Kajoor ñoo fa a nekk wala lu déedéet daf koo def ngir ñoom seeni doole di gën di néew ndax Sidiya bu féetee waalo moom moom kese moo fay nekk kon ba nekk Lat Joor ci la doole di gën a bari la Joor bu féetee Kajoor moom donc Kuntam ñoo fi nekk waaye amul Seex Maadi bu moo fi nekk nga xam ne comme ñoom ñett ñi boole woon def coalition wantuwaa bi lu dara jur dañoo fexe ba tàqale ñett ñépp lañ tàqale biñ tàqale ñett ñépp nag ba xareb ba seen diggante ak Almaañ jeex bañ na xam ne foofu moom jàpp nañ ne amatul jafe-jafe bi bi ñu ñëwee li ñu njëkk a def dañoo xeex amul seexu Samba saajo mu ngi daanoo jaa jaajoor de kon kooku moom pare na bokkutul jamono jooju it fekk na lu ko jiitu ginnaaw saajo Sadio Albouri coalition ak la Joor jeex na ndax Albouri bu leen fàtte ne eh, des na ci ñëw xam naa épisode bii di ñëw sax ci la ñuy waxtaan ci moom andi ci lu yaatoo yaatu moom Albouri yi Birame Penda Ndiémé wala Albouri Birame Penda Njote moom bu leen fàtte ne bi mu juddoo ba am ñetti at dañoo xare ngëne leen ñu rey ay baayam ak ay magi baayam mu dem kër amadou yalla am juróom ñatan ñu ñëndi kër kajoor kër bi damel bi ma la fala fa la yaro fa la yag mbolam xex yi la jor def yépp ba ci bu nekkul xex mujj yépp and an na ci bokon ci jambar leen la yi la jor yi dàq xex ànd na ci waye jamono yi mom da fekk mu def coalition mom mu genn ci coalition la jor ndax mu jolof jolof wala dem ngir jëli nguru jolof muy tronu jolof kon mom ma nga fété ma nga ma jolof nga xam kon jolof jolof yi ak kajor kajoor yi seen digënté xawna am ben facteur bloquant moy xawna am benn baras bu dox seen diggante mooy kajoor kajoor ñoom depuis bi ñu xare jee gille ak alburi ñàkku seen diggante dama war a neexe dëgg dëgg dëgg dëgg neexeetu ko tubaab bi moo it keroog bi muy exil di alburi tubaab bi xaw xam xaw xaw am xel mu rafet ne war na cee mën a jëlee ndam ndax li mu ci jëlee ndam mooy su may dal ci moom kajoor kajoor dañ koy seetaan ndax booba kat ñaaw rek ko waral ndax booba gis na ku mel ay sayer matiba ku mel ne Yamar Mbodj euh, ca ci ca Waalo ku mel ne euh, Almaami bu Fuuta relation yi amoon nañ ko waaye bu fekkoonte nañ ñoom déggoon nañ leen Alboury waxoon ca commencement ba ndax 1881 dañoo daje ci Sugeer ay ñoom jëriñ Omar Ñaan la Joor Làbba borom Daarne Demba Waar Joor Mbay Dende Mbacke Sawaro bari wa Almaami bu Kër bu Fuuta Alboury ne nañ boole suñu doole nañ boole suñu ngànnaay te bàyyi xeex bi ñuy xeexoon suñu biir. ñu bayyi nguur mi ñun benn noonu lañ am muy tubaab bi nañ boole suñu doole ak suñuy ngànnaay ñu xeex ak moom delluwaat ko ci réew mi jóge woon waaye taxul daal ñu ñu ah, loolu am waaye su fekkoon ne doole yooyu am na kon ñoom duñu man loolu waaye booy xool ci jamono yu mujj buur bu ñu dal sa kaw rek da ngay xaw a daanaka da ngay xaw a néew doole pour nga am ñu la dimbali dafay jafe ndax keneen ka day fekk toog ndax li ko waral moo lañ wax léegi ndax eh, la Joor mi la rabataay deqale fekk na jamono Ibrahima Fatim Sarr ñu ngi koy ji naan espion France la diggante français yi dafa tax ku mel ne dembawaar joor bay Mbaye euh, mu ngi woote euh, diggante ma gouverneur ak xarit ndax bu leen fàtte am na ci yoon woo xam si ne miti si nekkoon Ndar muy ñoom Crespé ak ñoom Deves bi ñu bindee leetar Lat Joor ngir mu ñëw tegaat Kajoor loxo te gouverneur dégg ne Lat Joor mi ngi jaajoor di woote dañu yebal capitaine Volva mu ànd ak Demba ñu génne Lat Joor Kajoor ñu tas Kajoor def ko six provinces def ko benn confédération def ko ko benn confédération dénk ko Demba War Sall ñu wax capitaine Balba ñu ànd ak Demba War ñu génne la Joor Kajoor te moo ñoom ñii ñoo àndoon bokkoon di xeex waaye li ma lay wax dañuy dem ba mu yàgg ci ruuxale ci ay seytaane dañuy dem ba mbooloo dañuy xaaj xaaj xaaj ba daanaka ña fay des dañu am doole bu duggee seen biir dañuy dañuy gasax waaye daal réew la Sénégal réew mu am jom réew mu yàgg wane boppam ci ak mbaax xam naa lii nag lu ñu ubbee la woon tey ngir ubbi nañ nag bunt yi baree bare juñ waaye jii nag lu ci nekk buñ dee ñëw ba ci ñu doon fale réew mi ak buur yi des na ci ñëw indi ci épisode bu yaatu ba nit ki xamee niñ daan fale ak baax baax yeeg li nga daan yi ne daan war a fi munta ñàkk yooyu des na ci ñëw niñ daan fale teeñ yeeg des na ñëw dammee li fi nekkoon nit des na ci ñëw mboolem ba tàyyi amat yi ñu ci xam yépp incha allah des na fi ñëw kon émission démb la ñu wax waaye démb it jëmul rek ci dammeel yeeg teeñ yeeg buur yi bu leen fàttali daan waxtaan ci diine yenn saa yi bu jot see ba tey ñu ne woon màggalu Daaru Xudoos si na ñu jël ay épisode yo xam dañ koy jagale Cheikh Mamadou Moustapha Karim atta sax bu dara xiwut su ko nit ñi sako mën nañu jël menn mag ñu waxtaan xam ñu jël seigne Fallou wala si abdul Khadir wala ci Cheikh ci def ci épisode waxtaan ci ndax dañu wax né comme démb démb lañu waxtaan ci jom ci ngor ci juddu waye ci diiné ndax moy tax nga xam fi nga def sa ndax bo jom amé ngor am ñu xamal la ni diiné niñ ci nek ak mag ñi àndoo seigne touba ni daan jariñoo waxtaan woowu nak ñuy jëmale ci mag ñi timit jëmale wuñ ko rek ci ci ci yoonu murid rek tay ji mersalan ku melni Cheikh amadou Fouti yu tal di góor yàlla wala imaam Alaaji Malick suñu ci gëstoo ba am ci lañ ci jàpp ne moo dajee te am temps bu ñu wax ne dañ koy leeral ndax ñoom ñëpp ñoo bokk de ashadu an waa kër Seex Xaadim benn kër gi la benn néeg bi la ñoo bokk menn maam muy maa ndax ñun jullit kat suñu doole mooy moom innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum kon li war mooy def islaa islaahu zaatal bayni liy boole suñu doolee loolu la ñu alxuraan sant kenn ku nekk mel ne ab saabu ci moroom doo yàqu dërëm doo bekk fu ñu ko yàq ndax yonente bi wax ci hadiis walasi nafsi bi yadi lan tadxulul janna ataa tuumin wala tuumin ataa taxabu giñ naa ki sama kenn nekk ci loo xam ne du ngeen dugg àjjana mukk li fekk da gëm yàlla ko man sëkk waaye seenu ngëm munta mag li fekk da bëggante soppante kon mbokk yi xam naa lii moom ci mooy mooy première taay bi dañuy taxawal foofu rek yow aaxiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin